jërëjëf Seck chef de quartier ni yow lay mel ni ngay dox ci quartier bi yëpp mi ngi saa nopp bi lu baax rek ngay dox jërëjëf kontaan nañ ci yow bisimilah. jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin euh, allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman euh, sama xol sedd na sama xel dal na te jox nga ma sama wàccuwaay te nit as ku ko teral tëral ko Mm-hmm. waaye boo ko toroxalee da lay daw di toroxti mm-hmm. gis naa cër bi nga ma jox euh, macha allah. yaa ko moom foog nga jox la ko. Euh, góora mm-hmm. dafa am ku mu gis bëgg koo jël soxna. nee bi bu mu ko gisee nag ba bëgg ko ñu waxtaan magam jii di binta ñu bokk ndey ak baay. ne ko du ci dal. loolu naqari ko lool. ba tax mu ñëw wax ma ko tawat ma ko muy lu ko jaaxal te jaxasee lu bari ci àddunaam man nag kilifa la te boo ñëwee ci kër nag bëgg a dugg ci kër gi da ngay jaar ci bunt bi te it kër goo gis nag dafa am kilifa kon euh, may balaa may wax ak jigéen man duma wax ak jigéen man kilifa kër gi laay waxal muy borom kër gi ana borom kër gi waaye hmm? sëñ bi tekkaral bi yéex na de. nga ni loo nga ni ne nii xam nga waxtu wi ñu tool dafa tool dañoo tool ci julli juma damaa bëgg ana borom kër gi laa wax. moom lay la borom gi ngi ngi euh, euh, mhm. dëkk bi dafa am ay réalité kër gu nekk am na nu muy doxe kilifa goo gis am na benn grand dame bu nekk ci ginnaaw tubaab nee na derrière chaque grand homme y a une dame. maanaam euh, góor gu baax boo gis mooy dem jigéen ju baax moo topp ci ginnaawam di ko jàppale. ju baax jaa ngi nii. ju baax jaa ngi nii. baax jaa ngi nii. ana borom kër gi. boroom kër gaa ngi nii maa ngi nii. ma kilifa benn lay doon ci kër. waaw anam borom kër gi laa wax. maa ngi nii. maa ngi nan. Euh, sëñ yow sëñ bi looy xiin xiini mel ni looy mu. sëñ dëkkeegul sëñ Seck euh, dama bëgg rek ñu téye waxtaan ci xel mu dal xel mu sell mi yow ko baax nga waaye comme ni ma la ko waxee kër gu nekk dafa am ay réalité kii moo góor a ñoo bokk ndey ak baay moo naam yàbb bi jox góor a moo am moo am